télévision Futur Média mbokk yeeg xarit ñu sétane dal leen jamm ci xibaaru digu bëccëg gi boobee xibaar li ci gëna fess doxup ñaxtu bu front patriotique préfet bu ndakaaru tere na ko jamono ju ñuy àddoo ña bokku ci front patriotique di tase ak taskatu xibaar yi ca permanence bu parti démocratique sénégalais dañu fa dem fekk fa suñu ndaw Salimata Seck té yoyé jamono yitam wa APR nañ ko waxé won ne woon nañu bu PDS ak ñoñam manam front patriotique amalé ab doxup ñaxtu dañu def ab contre marche ñom itam jamono ji bi ñuy àddoo ña ngay wax ak taskatu xibaar yi ateb Karim bi boo Bourgi la ñu wóolu tey jii mu daal di weddi tuuma yi cré yi teg ci am ndoddam nee na lu jëm ci prête-nom wala société yooyu ñu tudd di tudd turam taqewu ca laalewu ca tey di bës bi nu jagleel données personnel ñu koy màggal euh, fii ci Ndakaaru li ñu gis nag moom mooy ñu nekk ci internet bi moo xam ci réseau sociaux yi Facebook Instagram wala yeneen li ñu wax daal moom mooy ñaawlu nañu am nañ ci ay jafe-jafe indi nañ ci ay seede tàggat yaram kan 2015 sunu gaynde yi lajj nañu ci kanamu fenek yu Algérie ñaari bal ci dara lañu leen door foofe itam ca Guinée équatoriale yaakaar tas na fa ci biir gaynde yi di ngeen leen dégg ci si biir euh, xibaar yi dossier bés bi ñu jagleel ko wàllum politique waxtaan lu jëm ci kujje gi fii ci Sénégal APR ak parti démocratique sénégalais kenn ku ne joxoñ sa ba baaraamu tuuma sa morom ci lu jëm ci wàllu kujje ga ak doxalin ba taskatu xibaar bi di Mame les Camara nekk itam analyste politique gëstu na ci mbir mi mbokk yi ponk yi mooy yi fi gën a fës da ngeen di taaxirlu ñu faram fàcce ko Cheikh Ahmadou Bamba baax bokk ci ndawi UJTL ñu ne sax tey jii la ñu joxte ne daal euh, juge d'instruction dina ko déglu ci lu jëm euh, ci namu euh, nañ ko joxoñee baaraamu tuuma ci lakk benn woto dakaar dem dikk moom baayam nekk kàngam ci parti démocratique sénégalais fan yëpp ñu ngi ko teg loxo defoon ko garde à vue barki dem ba léegi ñu ngi naan dina gise ak juge ba ñu koy layool di xaar mbir mi nee ñu nag mën na wadd fii ci kanam tuuti ñu des ba tey ak waa waa parti démocratique sénégalais seen ñooñ wala bokk Front patriotique ndax ñoom tey ci àllarba ji dañu ne woon dañuy amal ab doxum ñaxtu loolee antuwul lu ko waral préfet bu ndakaaru moo leen ko tere ñuy tase ak taskatu xibaar yi jamono ji ñuy àddoo ñu dem euh, doxantu ba permanence ba fekki fa Salimata Seck Salimata maa ngi lay nuyu. Fatima maa lay fay. Euh, Sali lan lañ mën a jàpp ci seen ndaje ak it yan kàddu lañu fa yëkkati jëmale ci seen dox ñaxtu bi ñu leen tere. Faty dëgg la point de presse lañ doon amoon jamono yi sax jeex na liñ ci mën a jàpp rek moom mooy maître Amadou Sall mi yoroon euh, porte-parole du jour bi moo ko nekkoon li mu xam ne mooy donte ni tere nañ leen ko wante joxoon nañu baaraamu tuuma Macky Sall nee nañu mënuñu am sañ-sañu di dem ba Paris di fa marche ba pare ñoom ñu leen koy tere ci loolu nag dafa am méthode bu bees nee na bu ñu génnee léegi dootuñu dem fenn di fa kalaame comme ay cour suprême ak lu ni mel ndax ay ñaari at kanam lañ leen di tontu taxawal li ñu tuddee ñoom tribunal du peuple maanaam askan bi la ñuy waxal te di leen woo te loolu ñu ngi koy commencé tey maanaam fu su nekk fi nga nekk section boo xamante ni rek yaa ngi fii ci Dakar ak ci région yi fa nga nekk muy sa kër wala sa quartier nga génn fa wala ni am na lu la naqadi li la naqadi mooy lan da nga bëggoon wax li la naqadi ñu tere la ko nee nañ nag méthode boobu la ñu génne di xaarandi ba fii ak euh, tey jii di mercredi ak jeudi ñu daal di nag xool ndax préfet dina leen tontu seen euh, meeting vendredi bi bi ñu waxee loolu nag ba daaneel ci la Pape Samba Mboup daal di jóge fële ca salle ba ñu leen yéen ñëpp ay tàppet ngeen ndax euh, Macky Sall bu ñu jógul jàmmaarloo ak ñoom ñun bi la ñu jëm Fatou Dieng kàddu yooyu la Pape Samba Mboup daal di na nag xas na leen na ni ñu na ne Macky Sall dañoo war a jàkkaarloo ak moom fi mu toll nii nag loolu lañ fi mën a jàppandiku bu ñu ñëwee suñu yeneen jataayu xibaar nag dinañ ko yaatal ba mu gën a yàqale. Mata duñ la bàyyi ndax euh, euh, doxu ñaxtu bi nañ leen ko tere du sax benn ñett ñaxtu lañ waxoon euh, ci mhm. jeexintalu ak euh, weexintalu weer bi préfet bu mhm. ndakaaru bii la leen tere wala yëpp la leen tere ak mhm. itam bu fekkee ni euh, ñoom nee ñu préfet bi nanguwu leen wala tontuwu leen ban tëralin lañ nar a jaar waaw mooy li ma la wax dañu woon comme tey mercredi dañuy wàcc ci tali bi jeudi ñu noppalu vendredi ñu def meeting fi ñu toll nii ne nañ euh, peuple bi la ñuy woo nee na ku si nekk na nga génn fi nga nekk nga wane lu la metti yaa xam ndax da ngay takk morso bu xonq wala noo koy defee mais na nga wane fi nga nekk ne am na lu la metti bu ko defee ñu dégluwoon di tey jii ci àllarba gi lañ koy door di ñu déglu. bu fekkee nag dugalaat nañu beneen demande préfet teneen tere leen ko Ahmed Amadou Sall nee na bu boobaa dinañ xam ni ñuy defee mais fi mu toll nii nee nañ askan bi la ñu jël en à témoin def leen seen tribunal bi pour ñu atte leen ak Macky Sall bi nga xam te nee nañu dafa leen siñ fang saa bu ñu xëyee ni dañuy marche rek mu tere leen ko Salimata Seck ñu koy jaajëfal niñ leen ko waxee kon bok euh, lu jëm euh, ci doxu ñaxtu bu front patriotique biñ naroon euh, biñ jàppoon ci ji antu préfet bu karu mom moo leen joxul dogal ngir ñu def ko ni ngeen ko déggee permanence bu parti démocratique sénégalais doon fata seaktas ak taskatu xibaar yi Salimata Seck teewaloon ñu fa jamono itam wa APR di taseaktas ak taskatu xibaar yi ci lu ñu mujj jot ndax ñoom itam nañu bu front patriotique patriotique defee euh, seenub marche ñoom dina ñu def euh, contre marche mu mel ni attaque ak contre attaque lay doon Maimouna Ndiaye la ñuy fekki ca ñooñu président Sall mag euh, Maimouna maa man lay nuyu. Eh, Fatou Dieng. mu ngoog Salimata Seck wax na ko waa permanence waa Front Patriotique ña nga woon ca permanence bu PDS di def seeni la nga xam ne métti na leen foofee ca ndajam APR luñ fa mën a jàpp. Uh, dañ fi dañ fi mën moy jàpp mooy uh, uh, waa APR ñoom li ñuy wax mooy PDS dañoo lancé semaine de guerre maanaam ndax ay manifester lañu woote ay ñaxtu doxu ñaxtu ak lu ñu mel ne dañoo bëgg rek yëngal dëkk bi te ñoom duñ ko seetaan ñi ngi dinañ def face parce que dëkk bi jàmm moo fi xew ba léegi te ñoom li ñu bëgg waa PDS mooy population bi ak nguur gi nañ ci loolu amuñu ci intérêt sax Mamadou Diop waxul Abdoulaye Wade dëgg te ñoom nee nañu fi ne nii taxaw nañu dinañ def face lépp lu ci waat nañ ko def ndax euh, réew mi du ñu nangu kenn daal di koy taal nee nañ ci lool nag ñu ngi ñaan euh, ab ñu ngi def appel chef religieux yi maanaam nitu diine yeeg yooyu ñu ñu ñu wax ci parce que PDS nee fu ñu jëm kenn xamatu ko dañuy bañ a ñàkk ñaar yoon te nee nañu képp ku ñu ne ràpp ci kaso bi muy euh, Karim Wade muy euh, xale yi ñu teg loxo fan yi di di ci war dinañ ko def te duñu dellu benn yoon ginnaaw. ñu koy sant di ko gërëm moom it ma nga woon ca uh, ñooñi APR ndaje la ñu fa doon amal ñoom it seen jano ak taskatu xibaar ba waa PDS waxee ñoom tontu nañu li ñu gis moom mooy uh, waa Front Patriotique ak seen i dañoo bëgg uh, taal réewum Sénégal te loolee duñ ko nangu may Maymuna ak Salimata dinañu ko gën yaatal ci suñu yeneenu jataayu xibaar dañ leen ko waxe woon ci ponk xibaar yi mbokk yi àtteb Karim Wade ma ngay wéy naam ki fi nekkoon jëwriñ teewul moom teew na ca tuatekaay ba ci ndakaaru moo di gay ni ñu ko waxee woon ci suba bi boo Bourgi ñëw na lu jëm ci AHS nañu ko taxawalee ak yi nga xamante ni itam moom mooy ay prête-nom bi boo weddina tuuma Fatou soxna Fatou Gueye ni nga ko waxee loolu la amee ki nga xam ne moo di Bibo Bourgi tey nag bi ñu daaneel kaddu kaddu yoo xam ne toll na ci diiru ñetti waxtu ak lu teg loo xam ni moom rek moo doon wax ngir justifier nan taxawalee société yi nga xam ne lañ ko tuddee ñëwaat na ci lu bëri waaye nag li mu njëkk a xamal ne ci biir ay kàddoom moo di moom ba muy am ñaar fukki at ak benn la door ci liggéey gàddu société te itam alal dafa juddu fekk njabootam am ko kon nag moom bu ko kenn wax ne prête noo la wala dafay liggéeyal ki nga xam ne moom moo di Karim Wade loolu nag ginnaaw bi mu ci noppee ñëwaat na ci li nga xam ne mooy société bi di AHS wax ko ni mu ko taxawalee du société boobu rek lañ ko tuddal ndax beneen société muy ABS corporate Dalia Limited ak société yu ci bëri yoo xam ne mu ngi biir dossier bi nee na nangu nee na moo ko moom waaye am na yeneen société yoo xam ni gars yi bool nañ ko dossier waaye nee na moom laalewu ci lenn nekkut actionnaire te tekkewul sax ba ñu koy defaree. mu ne nag li nga xam ne moo jëm ci compte yi nga xam ne dañuy tudd fële ci Monaco mu ne compte yooyu boo gisee mu daal dafa yóbbu seen i koppar moo di kat dafa fekk ne Monaco dafa nekk dëkk boo xam ni franc ñoo fay daw kon dafay yombal transit te Monaco amul lenn loo xam ni da nga fay dugal mu mën a ump lépp loo xam ni contrôle la. mu ne nag société yi nag yi ñu koy tuddal moom li mu mën a xamale te mu leer te wóor moo di ñëpp dañ ko créé ci droit sénégalais ñu fay impôt di fay taxe di fay ay dividende te itam nee na compte yi nga xam ne mu nekk ci Monaco ñëwaat na ci laata mu daaneel mu nekk Karim Wade laalewu ci bu koppar gu fay mos a jógee dugg ci poche Karim Wade wala bu jógee ci poche Karim Wade dugg ci yooyu kon nee na dossier bi nañ ko wax rek moom mi nga xam ne moo créé société yi ñu laal te société yi mu laal mu ne ab sénégalais la bu jàngi woon ñu am xam-xam taxawal société fekk njabootam am alal kon nañu ko génne Karim Wade ci wax jooju noonu la tamit la tuddee ki nga xam ne moo di Alioune Samba Diassé ci beneen société di ABS mu ne Alioune Samba Diassé sénégalais bu nangoo liggéey la bu daan doole ba taxawal société am waaye tamit kon su fekkee collaboré nañ nee na laalewu leneen ci dossier bi kenn ku mu tudd nag ci biir dossier bi moo di Pape Mamadou Pouy ak Pierre ak Bouba nee na ndax moom moo leen recruter ñu ànd liggéey monter société yi mu di AHS mu nekk tamit beneen société boo xam ne ñu wooyee mel bi soxna Fati waaye nag loolu lépp dinañ si ñëwaat ci ngoon bi ci nu mu gën a yaatoo parce que nee na AHS yi nga xam ne lañ tudd ci biir sous région bi nekkul AH bu Sénégal moom moo ko taxawal waaye MENGIS moo ko taxawal waaye MENGIS boobu ci biir laaj yi nga xam ne lay tontu Anne xam leen tamit ne Menzies moom moo ko moom Pape du Pouy ak rakk ji nga xam ne moo di Abdou Karim si moom mi nga xam ne dafa daw tey yoon di ko wër ba léegi nii ñu koy jaajëfal moom moo digee doon àddoo ca palais de justice bi nekk ci ndakaaru ñu wax ci njàng ak njàngale kuréelu jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi ni ñu ko waxee woon tey jii ci suba bi waxtu jotee dañoo amal seenub euh, débrayage maanaam dakkalandi euh, seenub liggéey ci daara yu kawe yi ne ñu sax ñoom daañu taal lépp lu tënk euh, luwaa yooyee di ay luwaa yoo xamante ni si gis ñu ci seen bopp benn yoon ca jamono ndongo yi nekk université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru ñaawlu nañu débrayage yooyu yile li ñu gis daal moom mooy euh, gindiku war naa mën a am ci réeroo gi ndax ñoom euh, dañoo bëgg at moo xamante ni si euh, dañu koy passé te duñu am benn jafe-jafe Aïssatou Paye Fall Thierno Laurent Mendy doxantu nañu ba université ñu teewlu kàddu yenn ci dongo yi. débrayage bi du nekk loo xamante ne day arranger étudiants yi mais man li may njëkk a wax à chaque fois li ñuy wax ñun mooy que na ministre bi faj coono suñu enseignants yi suñu professeurs yi. parce que ñun dañoo bëgg a certes ñun nous sommes déjà nous sommes en vacances mais am na ñoo xamante ñoom commencé nañu déjà seen emploi temps yi génn nañ mënaguñoo def cours am na ñoo xam jusqu'à présent ba tey defuñu cours les nouveaux bacheliers am nañu toog six mois je pense que ñoom it defuñu ko ils étaient en vacances donc loolu c'est quelque chose bi nga xamante ne du du loo xam lu yoon la ak Sénégal fu mu toll enseignement Sénégal fu mu toll léegi. ak tiitaange rek parce que boo gisee nii année bi commencé wu la ba léegi te ñoo ci fin janvier début février année bi commencé gul prof yi di grève loolu problème abu mag a mag la beneen ponk bu nu junjooñ di bës bi nu jagleel données personnel ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer janvier yamoo ko bésub àllarba li nu gis nag moom mooy ñiy yëngu ci internet bi moo xam ñoo ci réseaux sociaux yi wala ñu nekk sax ci site internet yi li ñu gis moom mooy bés bu ne ñu jànkonteel ak jafe-jafe yu ni mel maanaam daal di ñëw euh, jël li nga xamante ne si moom mooy ay données jàmbur waaye xibaar yi ko soxal na jël ko def ko neneen am ñoo xam ne sax indi nañ ci ay seede lu ci mën a moom ki ne dem defal nañu ci ab gëstu ñu teewlu ko. muy Facebook yenn xeetu xarala yi.

sa carte bancaire wala sa sa email da ngay mel dof parce que ñun ñëpp boo xoolee matériel yooyu yëpp moom la ñuy liggéeyee chaque jour. seetlu gi ñu bari ci doomu aadama yi dañuy jël seen vie privée di ko wax ci internet bi lolé mën jur. giraawaal yi. boo jëlee sa photo def ko ci Facebook bi mais bu ko jëlé posté ko mais yaay perte parce que dañuy wax ni yow loolu sa vie publique la mais lo xam sa néeg lay yam yem mais yemale ko sa Fatou Diouf di ab ndongo mi ngi nettali ni mës nañu ko piraté ci Facebook am. sama compte mosoon nañ ko piraté affaire bi métti woon na parce que ki ko piraté xamuma ko woon déjà dafa dugg sama Facebook récupéré fa ay photo bu mu ko bu mu ko récupéré mu dem ubbi beneen Facebook teg fa photo yi di ko def déterger ko di def ay ay photo yoo xamante ne du man daal. mais dama tok ba sama ami dima envoyer ay message yi ma li ngay def Facebook li genre alors que c'était pas mal ci la len expliquer ne lii dañ na pirater du man jafé na lol tay ji ngir xex piratage waaye amna ay yoon yu ñu mëna jaar ngir mën koo wàññi. mot de passe yi ngay joxe nga surveiller ko ñi dugg site bi nga mën a xool naka ngi def wala nga dem jëndi ay ay ay ay ay modèle yoo xam ni euh, mën nañ la dimbale ngir nga mën a fàggu si sa site internet boo nekkee si Facebook wala nga nekk si Twitter wala nga nekk si beneen réseau social nanga nga def ndànk bul bul joxe sa lépp bul wax fii laa dëkk bul wax fii la nii laay def fii laa jóge waaye Sénégal boo nee xaar rek ñu ne la man maa ngi fi plage maa ngi fi maa ngi fi maa ngi fi loolu nekk na loo xam ne baaxul. bu ñu nee nag li ko yombal bokk ci internet Fi ci Sénégal temer bo jël fanwer ak ñent dañuy internet ndaw ñi bo juroom fukki dañuy réseaux sociaux. Fatou ne dem kuréel gi lëkkale ñi liggéey ci wàllu industrie alimentaire lëkkaloo ak seeni naataango yu fekk baax itali amal fi lël ci ndakaaru lañ ca bëgg nag mooy tàggat yenn ci ay ndaw ñu mën a jëriñu ci boobile liggéey wax nañ itam euh, ci lu jëm ci tukki ki nu nemmeeku ndaw yi di ko jóge fii euh, di wutali biti réew Codé Ndiaye Mar Dieng ci ay leeral syndicat bi ëmb liggéeykat yi yëngu ci wàllu industrie alimentaire ak seen naataango yu jógee ca Italie fas yéene amal ab lëkkaloo Lamine Fall jiite Sintra di dellu si ci solos partenariat bi lee CGIL mooy centrale syndicale italienne bi ëpp ci Italie ay liggéeykat moo moom lu ñu amal partenariat fii ci Sénégal ñu ñëwoon nag tey pour xool nan la nan la ñu waxtaanee pour signer benn accord cadre boo xam ne bii daf ñuy lënkale ak ñoom pour ñu jàppaloo dimbalante. mën a disons jël ay questions yoo xam ne bi tey jii mi ngi traversé mouvement syndical bi. lëkkaloo bi nag la ko tax a jóg bokk na ca formation militant yi waaye itam wàllu immigration. bu njëkk bi mën nañu wax ne mooy bi nga xam ne bi politique d'immigration bi nga xam ne euh, moo am. diggante Sénégal ak Italie war a mën a dem ba signé con li ñuy wax convention boo xam ne bii dana permettre ku retraité Italie mën a ñibbi si Sénégal ci jàmm sa pension di la fi fekk nga di ko fayeku di mën a dundal sa njaboot. beneen bi itam mooy li nga xam ne moom la ñuy wax formation formation nag dafa bari ay disons dafa bari ay ni ñu koy waxee ay poñ ndax. ñun syndicat lañu il faut ñu def formation syndicale ndax dañu am ay militants yu bees dañu am ay xale tey jii falu ci biir këru liggéeyukaay kay nek ay responsable nek ay délégué du personnel té amuñu xam-xamu syndicat. parti italien bi nak di rafetlu initiative bi lé noi crediamo noi già stiamo facendo dei cicli di formazione. partenariat bi amna solo ndax té dañuy former ay syndicalistes sénégalais ak ci participation syndicalistes italiens. partecipato ai corsi di formazione con la FLAI. Sergi Gallo jiite syndicat italien bi di xam ne dana def kéem lay kàttanam ngir rek fexe ba partenariat bi daal di jëm kanam.

Euh, juste une question. Le culot qui vous a manqué durant cette compétition, est-ce que vous allez avoir aujourd'hui pour pouvoir démissionner bien avant d'arriver au 8 février, à la fin de votre contrat Je suis en fin de contrat. Le contrat est terminé. S'il vous si vous parlez de, la situation contractuelle, je suis en fin de contrat. Conférence de presse après match metti qui entraîneur b. J'ai répondu déjà à la question. C'est pas votre problème. J'ai pas envie de vous répondre. Eh ben, j'ai répondu en disant que j'étais à fin de contrat. Vous avez établi ce que vous voulez. Gain du Sénégal, la 17 match. Lolo et gisu à Giresse. on n'a pas été à notre niveau. niveau

Tidiane dañuy des Guinée équatoriale maître Augustin Senghor bi jiite fédération sénégalaise bi yëngu ci wàllum football ñoom nanguwuñoo wax ci lu euh, jëm ci ëllëgug Alain euh, ci kanamu sunu gaynde yi ñu ne sax mbir mi dañu ko bëgg a xoolaat ba noppi dañu koy teewlu ak suñuy ndaw. waaw Djilass defe naa euh, bu ñuy euh, kii ak moom euh, dañu fixé woon ay objectif mu doon coupe du monde bi ak kan bi mu jeexal ko am na lu ci baax am na lu ci bon kan bi tamit Euh, nit ñaa ngi la laamee ci euh, ay choix yeeg yooyu mais defe naa li am solo mooy ñun fédération lañu euh, du ñu jël benn décision ci benn sens wala beneen ci yàkkamti dañuy dem ci dal waxtaan suñu biir waxtaan aussi ak kilifa yi nga xam ne ñoo ñu yebal vraiment xool décision bi gën par rapport ak avenir. yakar tas ca Guinée équatoriale waaye it fii ci Ndakaaru yaakaar tas na fi démb ba nu soufflé coup de ba nu sifflé coup de final ba metti woon lool ci ñenn ci askan wi li ñu gis. gis daal moom mooy nanyu nañu ne sunu gaynde yi daañu sori lool ci kan bi Pape Cheikh Diack lañ ci àndal ak Younous setan, euh, démb ba ni match bi ma nga woon ca ñenn ña. d'accord biir bi teel na dugg waaye presque fi mu duggee sax ñun ndax dana tax ñu bi di wax lii ñu ngi tolloon ci mi-temps wu Sénégal Algérie gaynde yi donte dañ leen mëne woon benn bal ci dara amoon nañ toujours ay chance pour qualifier wu ci quart de finale bi match bi yaakaar bi daa mujj tas. ñun daal am nañu déception boo xam ne vraiment bett nañu waaw loo xam ne nii rek boo ko amoon dem. déception totale déception totale lañ am parce que lii nii jurès li mu ñu indil nii neexuñu. mais joueurs yi mais xoolal li ñu fubal kenn xamul fay taxaw. ñi la jàpp ne lu jiin njàkk jurès mooy njàkk. lépp jurès la jeunesse moo yàq lépp man daal entraîneur bi daal vraiment man vraiment moo def lépp. coaching tâtonnement la doon demee maanaam kenn xamul ne parce que équipe da ngay am boo xoolee am ossature quoi. entraîneur bi la jeunesse moo ñu tooñ jeunesse lépp jeunesse la. Mamadou Ba moom mënul nangu ba léegi li ñu sélectionné wul Demba Ba. Il y a des joueurs à la maison, des Ba des, des, des Issardja, des joueurs qui veulent jouer on les a pas vus c'est pas normal. Yvan Santa mom jappné ne donte toog nañ war nañ mën continuer ak équipe bi lé. Euh, certes on a perdu. donte ñak nañ match bi aduna euh, day continuer di dox mën nañ changer coach bi rek wayé ñu bàyyi fi équipe bi fi euh, et la vie continue. Sénégal ben poñ rek la soxla won pour qualifier wu ci quart de finale yi waaye defetu gaynde yi 2 buts à 0 ci kanamu Algérie rax ci doli victoire Ghana bi 2 buts à 1 ci kanamu Afrique du Sud mo waral élimination wu gaynde yi ci Coupe d'Afrique des Nations 2015 sama liggéey bi instant lépp yàqu na xaalis bari lañ si defal ñu ngi nii. yàq nañ ko Zires moo def moom nag toog. instant damaa perte xaalis bu bari. xaalis bari laa perte na ma Macky Sall nag. Pape Cheikh euh, Diack euh, jamono yi Sénégal di lajjee moom am na ñoo xam ne yëguñu woon ne sax ma ngay joué bokk na ci ay fleuriste yoo xam ne euh, Pape Fara Ñing dafa doxantu fekk leen fa ñuy dooree waar ñoom daanaka ci match boobile wala sax ci lu jëm ci kan bi lañ ci xam bariwul li mooy seen rubrique gu kan ñoom ñi ñuy laaj ci bi mooy ñu teewul ca kan ba Demba Ba ak ki nga xamante ni mooy Jaafara Sakho Diop et Souareg se sont arrachés. Le coup de tête. Oh, le poteau et on voilà. le but. La voilà l'égalisation. football du ñëpp la yitteel naam ñi di jaay fleur xam nañu Coupe d'Afrique bi waaye nee yenn match Sénégal yi sax duñ ko sétane jafe lool ñu daal di wax nak turu dëkk bi nga xamné moy organiser Coupe d'Afrique bi. dëkk bi organiser nu mu tudd. d'organiser organiser Coupe d'Afrique bi. Ah. non man xawmako ma ko. Guinée Équatoriale. waaw waaw waaw Guinée Équatoriale. Koya. waaw Sénégal ñaata jour la ñu am. non xaw ma de. xamoo benn jour. déedéet. góol bi Tony Silva xamoo. non non. ñenn ci ñoom sax mënuñu laa wax turu jouru senegaal yi. nu mu tudd sax gos boobu boroom débalaa bi. ñeneen ñi moo xàmmee leen góol bi. xaw ma kundul xaw ma lan daal. boroom borom dawalaay man de kooku rek laa siy xam. li ci gën a doy waar nag mooy dañuy laaj joueurs yi nga xam ne bokkuñ sax ci liste 23 bi ñu daal leen départ ci attaque Jaafara Sakho wala maam Biram. maam Biram. Uh-huh. Jaafara nag noo koy def. <laughs> ko ci banc bi wala. déedéet moom attaque lay doon. Demba Ba nag. waaw ak Demba Ba. ñoom nga boole leen ci kaw ñoom ñëpp. waaw euh, yile jaaykatu fleur nag ñoom nee nañ Coupe d'Afrique bi yitteelu leen loolu bu dee sax ñu ngi supporter gaynde yu senegaal li leen gënal mooy euh, fexe am lu ñu yóbbu kër ga. xibaar biti réew daañu dem ca bët gànnaar bu Mali ak na Boko Haram di wéy di def njombe Addis Abeba ci Éthiopie ak euh, ndajem Union africaine waaye itam Libye duñu ko fàtte Ngoné Ngom mooy ki nu ko tënkal. ci ci envoyé spécial kurelu mbootaayu xeet yi Nigeria waratula wéet ci jëf ji limu japp modi Sahel bi yep waxtu wi mi ngi ci menace islamiste yi bokk ci Boko Haram kurelu mbootaayu xeet yi ki len togal ci région bi eh, di dànkaafu ni ñu ngi len di seetaan waye sen doole mi ngi gën di yok firnde li di camp militaire bu bes bi nga xamante ni taxawal nañu ko ci bët gànnaaru Mali Hierou Sélassie ni kon jot na ñu tek suuf wax ji te jëf te xam ni Boko Haram danger la du seulement pour nigeria waye continent africain bi ban Safarangir ngir Libye laaj bi xëyee nañ ko tey jii ci Addis Abeba groupe international de contact groupe boobu Union africaine taxawal ñetti fan ci weeru décembre ngir coordonner lépp lu soxol ci ay action ma commission bi war a xalaat ci naka la ñuy jeexalee guerre civile bi ci Libye ndax option militaire la ñuy jël wala politique la ñuy jiital retrouvé wu kon ci wërngaluk taabal loolu lépp nag ngir waxtaanee ko bu weesoo Libye woo nañu ay dëkkandoom pays du Golfe pays européens yi juróomi réew ñu jàpp ni ñoo ëpp doole

mu sàkku it ci homme politique yi waaye it xaajaloo nga xamante ni ñoom ñoo am ca Libye ku ci nekk taxaw ñu bokk lëkkaloo ngir xool processus politique bi nu ñu ci mën a jubloo ba euh, fitna gi foofee ca Libye ñu daal di koy dakkal euh, defi politique yi ñu réglé ko waaye it kaaraange ga dellusi fa ba faaw. Ngoné ngoom ñu lay sant di la gërëm gëstu àllarba bi aju ci wàllu politique ñu ngeen ko xamee tey nag ñu wax ci lu jëm ci taxawaayu opposition fii ci Sénégal APR ak parti démocratique sénégalais

ak seeni i bëgg-bëgg ci suñu réew kenn ku ne xam na ni que ni euh, réewu Sénégal euh, amuñu fi problème ci ay parti politique d'opposition parce que même boo xoolee parti politique yi fi nekk ëpp nañu ay ña ñetti parti xam nga dañu wax statut opposition def ko ci constitution mais droit à la marche def ko ci constitution mais am sañ-sañu wane sa naqar sax dañ interdire c'est systématique ñu encadrer pour nga def manifestation exception Sénégal. ci ay interdire meeting yu ñu acteurs politiques mel tamet, nguur gi day askan gouverner terreur gouverner ci intimidation gouverner ci gouverner ci

lu ñu baaxee parti politique yi ne ñoom ñooy bëre ngir jël nguur gi en tout cas ngir am euh, carte ñi nga xam ne ñooy sànni seen carte ñooy wate euh, sas la loolu liggéey la faw nga am ay jumtukaay am koppar am nooy mobiliser nit ñi sas la moom Mame Less Camara di wax ne laata opposition nga ne am doole ci Sénégal faw ñu wàññi parti politique yi li ñu war a def yëpp xam nañ ko li warut a def yëpp gis nañ ñu koy def nañu bàyyi di def li ñu warut def te li nga xam ne mooy àqu kuje politique bi ñu joxoo ko. lu ñu mën a jàpp mooy ci atum 2012 la président Macky Sall déclaré ni opposition faa mu am ab statut du Sénégal booba léegi ñetti at weesu mu mel ni amul benn changement. Lamine Diédhiou sant nañ la yéen tamit naka noonu ci kóolute bi ak euh, safo bi rédaction bu télé Futur Média dikk leen daje ngoon bu ci yàlla àndee ci suñu yeneen jataayu xibaar ñu yendu jàmm attention attention ñeenti fan dong moo tirage au sort pour mag bi nga xamni ni modi moo GFM en fait ñeenti fan mo ci des yónnee len gaaw ay SMS lu ngeen gëna ay SMS gëna am wërsegu gagné jël len gaaw sen téléphone portable bind FETE FETE envoyé au 26 444 au 26 444 et pour la Mauritanie envoyé fait FETE e au 15 59 oto bi mën dem tamit Mauritanie jël len gaaw sen téléphone portable ngeen a gagné Ford Mustang bu yànj bii wala ngeen mën a gagné bon achat yu am maanaa yi rien que pour vous. wér na paliku ñu jonki dem si yeneen i réew te mën a yem mën a yem mën dikki seen i réew waxati ko le tourisme sénégalais